j'allais de dire mooy que DPG kenn mënu ko woon daf avant la réactualisation du règlement intérieur de nationale ça a été fait euh, le président a fait un projet projet de loi pour dissoudre euh, l'Assemblée euh, comment dirais-je euh, le Conseil économique social et environnemental ak le euh, la HCCT mm-hmm. mais ñoom la ñu daf rek mooy ñu ñu accompagner parce que parce que exécutif mooy mooy complé mooy mooy complété euh, comment dirais je législatif mooy complété exécutif seen rôle dëgg dëgg dëgg c' est de conseiller donc président nee ni que actuellement man je trouve que ces euh, institutions sont budgétivores te amuñu fi njëriñ effectivement ban njëriñ tey la fi conseil économique social am waxuma la njëriñ bu nekk ci kayit yi de. waxuma la la ñu bind tënk ko déedéet mais sur le terrain ban njëriñ la la la la la conseil économique la amul benn njëriñ ña fa nekk nii lu ñuy def ñu jox leen ay oto jox leen ay essence jox leen ay ay ñuy wër sa ñu ñu ñu ñu fi HCCT ban njëriñ la fi am. am na njëriñ ci kayit de ci ni ñu ko tënkee ni ñu bingee mais sur le sur la sur la pratique sur le terrain amuñu benn njëriñ mu ne nañ ko pour revenir quand même Seydou ci DPG bu fekkee pare na c'est le moment est que mu def ko actuellement pour ñu sortir ci li nga xam ne moom la nekk jamono ji bi mënuñu ko def parce que ñoom ils n'ont ils ont violé parce que mënuñu violer constitution non dañ ko ko violer parce que ils n'ont pas parce que DPG dañ ko war a yëgal huit jours à avant cest à que gis nga fii. nit ñi ay xel la ñu yore ñoom dañu nekk si ay calcul mais dafa naa war nañu delluwaat encore. war nañu delluwaat dem jàngi seen dafi jàngat ak huit jours avant yooyu ñu wax que ni bu fekkee ni déclaration de politique générale bi date bi le président moom moo ko fixé date bi président fixé mais ci ci non daf bu fekkee ah. par rapport ak euh, li ngay wax que ni mm-hmm. mënuñu def déclaration politique générale bi parce que dañu salfaañe règlement intérieur bi euh, parce que dañu war a yëgal assemblée huit jours avant n'est-ce pas loolu nga wax mm-hmm. nee nañ bu ñu sukkandikoo ci yenn yenn député yu bokk ci benn bokk yaakaar su mm-hmm. fekkee le président mm-hmm. moom moo jàpp date la ñuy appliquer loolu mais ci stade fi ñu toll nii mm-hmm. actuellement assemblée ñoom ñoo jàpp date parce que le président moom moo génne décret à ce que ñu ubbi section extraordinaire waaw mais xam nga loolu ñoom ñoo ko wax xam nga ñoom tamit ñu ne ku ku sa bu juddi sëlam doo doo doo set <laughs> xam nga ñoom tey ils sont dans le droit d'abord les députés qui sont là-bas xam nañu la ñu defagum sur cinq ans am na ñoo xam ne tey dañoo demoon ci banque yi lebi am na ñoo xam ne dañoo dañoo duggoon ci ay ay affaire yoo xam ne tey ñoom quoi qu'il en soit les députés de Benno Bokk Yaakaar mënuñu ànd ak ci lii muy ni ni mel parce que ñoom ils savent que dans trois quatre jours wala dans cinq jours ñoom ils ñoom pare nañ ci. Mhm. ils ne seront plus députés waxuma la rek ils ne seront plus députés nii ne léegi de mais man gëm naa ne Sénégal bi ñu toll bi tey député yii nii dañ leen di fiché dootuñu nekk député Sénégal xam nga kooku nag bu xamee loolu. n'est-ce pas koo xam ne sa mort politique est programmée dans quelques jours kooku lan nga bëgg qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu tu vas t'attendre de lui que mu wax la ni mooy que li euh, non ils ont violé la constitution ils ont violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale te ñoom bu leen mm-hmm. arrangé chaque fois gis nañ fi président Assemblée nationale chaque fois lan lay convoqué du règlement bi mais yow nan ngay convoqué règlement boo xam ne yow doo ko respecté mm-hmm. c'est pas possible le président la République mm-hmm. a il a il a demandé de mettre ci ordre du jour bi ñëpp gis nañ ko effectivement ñëpp gis nañ ko maintenant les présidents yàkkamti nañu parce que xam nañu ni que buñ ko bu ñu deful DPG bi le onze ñu dugal seen genre motion de censure boobu ba nga xam ne tey daa mel ne baraada bu këpp <laughs> ah boo tegee sa baraada ba mu commencé ñor ba def si suukar ak naanaam mu këpp noonu la seen noonu la seen motion de censure bi mel donc xam nañu ne buñ ko deful avant le onze avant le le onze dootu dootuñu ko mës def te bu boobaa Ousmane Sonko wax na lu muy wax nee na ni que seen motion de censure motion de censure du fi mës am te loolu lu leer te fuñ ko fu leer lañ ko teg. Mhm. te ay te ay technicien ay ñoo xam ne tey xëy na sax technicien yoo xam ne yoo xam ne mu musuñu fi bougé ñoo fi ñoo fi ne ñoo ko wax. Senghor par rapport ak euh, polémique euh, bi jëm ci déclaration politique générale deux dates yoo xam ne <laughs> actuellement ñu ngi ko am conférence des présidents wax naa ko sànq yéen kaay également bi ñu ci maintenir le 11 wala jàpp le 11 par rapport ak déclaration politique générale boobu mais ñu gis déjà on parle.